di bégge bu baax a baax a baax di leen siyaare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen mu mel ni ki nag comme ni ngeen ko xamee démb 19 novembre ca arène nationale jàmbaar production tëggoon combat boo xam ne ni yaakaar naa àddina ñoo ko doon xaar mu doxoon ci diggante Siteu tarkindaa bu jàmm gën bi ak la jatoo muy Lac de Guiers numéro 2 doomu Guédiawaye combat ba nag ba mu jeexee lag moom moo am ndam par avertissement parce que boo xoolee bëri nañu ba temps bi jeex maanaam bëri bu méttee méttee métti bëri bu intense boo xoolee bëri bi démb di nga xam ne ñaari mbir yi doon bëri. maanaam démb ku ci ne joxe nga la nga am waaye nag la père Max doon wax rek ñaari ndamay dugg mais benn ay génn dem nag benn ba ba mu génnee fii ci géejuwaay la ñibbisi ci biir kër Lac de numéro 2 kon champion ñu ngi lay félicité di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw euh, Babacar maa ngi lay nuyu baax a baax di nuyu. sa mbokk journaliste yi caméraman yeeg ñëpp. Mm-hmm. di nuyu fans yeeg ñëpp. Mm-hmm. bàyyiwuñu kenn. Mm-hmm. di nuyu képp koo xam ne ngay bëggee la déggee numéro 2. waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daal. yaa ñëpp di gërëm ñëpp. waaw mais nag dinaa la xaw a tuuti tooñ tuuti ah jàllaa bi moom. waaw. y a beaucoup de jàllaa bi avec toi. Talibé Cheikh. Talibé Cheikh. wax nga dëgg waaw parce que boo demee fees wala nga dem dëkk yooyu. jàllaa bi moom macha allah. <laughs> taaliba Cheikh démb bu weex nga sol balaa ngaa dem làmb ji ana boobu. ma ngi fi est-ce que est-ce que aw ma ci 300. yu weex boobu dem tegtal la woon wala da nga ko soloon nii rek pour sula pour sula. lu weex ah lépp loo gis jàmm la ciy baax di sol lu weex. parce que démb dama seetaan ci sa ay ci ci ci ci combat bi démb. Mm-hmm. gis naa fi suukar. dëgg la. mu saraxe ko. gis naa fi benn pël bu gudd buñ def soow xaw ma soow ma suukar suukar nañ ko ou gis naa fi pom bi gis naa fi ceeb maanaam balaa dem dafa bokkoon ci say tegtal wala waaw mais noonu la xam nga man yooyu man du ma ko faral di res ñi nga xamante ñoom ñooy dox ay cadre ministère ñoom ñoo non yooyu du ko du ma ko kii man ñun lañ ma li ñu may wax rek moom mooy da ngay préparer sa combat entraîner côté mystique bi ñoom ñoo ko yor loolu ngay gis noonu yooyu yëpp xaw ma ci dara xamoo benn fu mu jógee déedéet xaw ma benn fu mu jógee nag ngay soosa bu toll ni yow séréer bu toll ni yow waaw ci nday ci bàyyi nga ne xamoo fa fu mu jógee ah bagage yi de ñu ñoom ñu ngi nii toog ñoom toog waaw ñoom ñoo dem jëli bagage yi indi mm-hmm. dem fii dem fii dem fii jeex na la nga bëri koo xam ne man ci li ñu euh, euh, li am mooy yaa ko may sens muy Siteu mm-hmm. muy xale boo xam ne na ma ko waxan laa koy waxee waat maanaam du sens du du du maanaam du sens moo ko bëriloo ak yow mais mérite la parce que da ngeen a bokk ñaari adversaire ci seen biir carrière muy Zos muy Papa Sow ku nekk daan kenn yàlla di dogal bañ na grand contre yow nga jël xale bi nga xam ne bokk na ci xale yëpp soow ëpp mbooloo bi ngay jël Siteu am na nag yeneen xale yu fi tege woon nga bàyyi leen fa jël Siteu wala Siteu rek ñëwoon nga jël ko non Siteu la ma wanoon la moom moo tax rek moo tax ma jël ko en plus maa moom bokkuñu bokkuñu yoon ma maa am yéene pour ko sens moo taxoon ma may ko sens waaw mais du woon dara nag. dëgg la bëri naa ñaar nit yoo xam ne daan naa leen. mu daan leen ñoom tamit. Mhm. xam nga la mu respecté ma. Mhm. moo tax ma ne naa ko may sens. Mhm. nit boo nekkee ak say mag. yaa ngi waxim dafa war a rafet rek ñun bañ ci tollee noonu la woon. pour suñuy mag may ñu sens. il fallait que ñu respecté leen jox leen cër. cër boobu la ma joxoon moom moo tax ma ne naa ko may sens. bàyyi ko sens. dañuy dem ba ci biir mel ne cër boo dafa teggee ko ci biir làmb ji parce que dafa mel ne la de dafa xaw a déstabiliser ci communication Siteu. non non non non loolu amul. làmb ak loolu ñu ànd. ñëw na ku nekk nañ ko yore moom ñëw na pour jaay làmbam fekk na koo xamante ne mentalam dafa baax ñëw nañ communiqué na jaay nañ làmb ji bo yàlla def nga li gën ci man. jaay ngeen làmb ji mais man balaa may ñëw sax ci euh, mbir yooyu damay ñëw ci bi nga ko mayee sens ba pare. ñu bëri li ñu doon wax li ëpp bu dee dix sénégalais nga jël huit yi wala sept yi dañ na yaa kopp doole. c'est li mu dugg du ci génn. communication boobu bi nga koy dégg ci sénégalais yi yow en tant que mbër mi war a bëri ak Siteu loolu noo ko doon noo noo ko doon recevoir yow noo ko doon déggee. mais noonu la xam nga tey sénégalais yi ñoom ñëpp li gis rek la ñuy wax. waaw yaa ngi dégg la dégg moo ko jiitu ci làmb. moo ko ëpp doole moo ko ëpp doole. waaw xam c'est normal ñu wax ko mais tamit mbir mi daal yow ki euh, Babacar. waaw affaire dafa yéeme daal. naa lépp lépp lépp naes na daal bëri nañ. xam la yàlla may na ma ndam ñu xoolaat leneen lu nekk suñu kanam xam nga di ci waxaat di ci waxaat nii xam nga dafay da ngay xawaree ba def. mais dana mbir mi dafa yéeme. parce que combat bi quoi fi mu jaar ba yegg si fii. si mu combat daa am aw yoon ba yegg si fii. waaw parce que combat bi daa am benn médiatisation bu ci amoon. dëgg que ni Lac de Guiers moo ëpp doole si si ta masta nangu loolu. démb nag bi ngeen ñëwee ci géew bi tamit dafa mel ni loolu lu mënti xew man maa ngi koy wax sama biir reportage que ni si ta mu ngi tenir Lac de Guiers tey dama doon wax ne la Siteu mi ma gis ñu naan amul doole amul doole mais Siteu dafa mel ne néewul doole la mm-hmm. non man waxuma dafa néew doole ndax jàppante ne. loolu na. waaw na comme ni ma entraîné rek. liggéey na nga liggéeyee. waaw ah, liggéey na mais liggéey est-ce que bokk na. parce que ci moom moom la ñu a wax moom lu mu yëg. mais yow loo parce que moom moo doon wax naa aw ma doole. damaa punkar rek aw ma doole waaye bañ dalante moom xam na lu mu si sentir mais yow centre dara ci bu ngeen dérante. bon bon entraîné na bu ñu waxante dëgg xam nga nit kam doo jël sa mbër pare doo jël mbër mbër nga doo entraîné. Hmm. entraîné moom def na ko moom hmm. waaw. parce que ba ko njattee ñu bari foon lam di jeex foofu mu génn ci ci ci ak sa bopp. non njatt bi moom moom ni mu taxawee boo seetlu ba ma ko njattee hmm. boppam bi fa mu nekkee moo baaxul ci man boppam bi dafa xaw a tegu sama catu poxutaan moom moo tax mu njatt bi baaxul mais bu xawoon dugg tuuti njatt boobu day jóg. mais man ci bëri dama gis benn bëri ba mu dem si da koy bëri yow saa bu leen jàppante rocce daw nekkee ci waaw xam nga tey bu Siteu man bëri moom moo tax ba ñu bañ dawee jàppante ma moom mu jël boppam teg ko fi fii boo fi tegee nit dootul bëri. da ngay xool sama combat yi man foofu laa teg sama bopp fii boo fi tegee nit boo defee nii doo mën a gis li nga bëgg a def il faut nga jéem a négocier ba sa bopp génn ba boppam génn ba boppam génn ngay soo ko gis li nga def ñëwul euh, am na ko mm. benn par benn kay ah, waaw mobilisation bi gars yi génn nañ waaw mais xam nga lamb moom noonu la waa Guédiawaye génn nañ ñi mën a dem dem nañ stade mm. am na loo xamante ne tey euh, ñi la doon jàppale ñu bari bu yàlla defee ne ñooñu xam la ñëw ñu à cent pour cent da ngay ree ba tas mais sant yàlla peut-être dañoo nekk ci ay yitte mais li ma mën li ma mën def naa ko gisante naa ak promoteur bi jënd naa ci moom ay nombre de billets yo xamante ne tey. waaw boole Mansour ci caméra laay waxee moom xam na xam na yaa ngi dégg am na ñoo xamante ne dugal nañ seen loxo comme lu mel ni comme euh, Lat Diop mm-hmm. yaa ngi dégg. tey euh, euh, Baara Gueye yaa ngi Modou Gueye tamit dugal na loxoom à cent pour cent euh, kii mu tudd sax Aziz Ndiaye ñoom dugal nañ seen loxo mais tamit sant yàlla tey peut-être loolu la yàlla dugal ñu xaaraat prochain combat incha allah. la waaw waaw. ci non loolu ay tooñ la woon rek man maa doon wax noonu rek. ay tooñ la nag la mais mm. question bi ma bi ma la posé. Ah. man maa doon tooñ rek man maa doon tooñ dafa am ku ma doon waxal noonu ci suuf. Ah. Ah. question boobu. Mm. ok merci c'est bien ce que tu doo xaar bañ pare fi xaar xaar bañ pare fii tons. waaw léegi nañ waaw waaw ñu continuer. Euh, xam nga léegi abu dafa ñu dugg ak yow ci biir combat bi mhm. ci biir Siteu bu la jàppee day ndengeeñ effectivement mhm. damay gis na day ndengeeñ parce que mhm. yaakaar na loolu jaadu na mais benn moment tamit Siteu xeex na ak yow jël si la bi mu dawee sëq sa geño gis ko loolu nga xam ne bokk na ci ay bëreem mooy mu kal la mu yéeg la ca ginnaaw kal la yaa ngi dégg foofu tamit pour man dinga nga dem foofu noo def ba génn ci Babacar nee naa la man damay bëri wala na ngeen comprendre ñi seetaan laa bëgg ñu xam. non wallaay damay bëri. Mhm. bëri rek laay def. Mhm. gis nga moom dawee ba seex ma noonu. waaw boo xoolee ma mbéj bopp bi bopp bi laa bloqué ci kaw. ba pare génn fu ma taxoon. Mhm. parce que xam naa ne su fa taxee dina ma yóotu kalma. waaw ngi dégg ma pousse bopp bi. waaw desex génn ma taxawoon foofu noonu. ma génnaat côté boobu noonu. parce que bu ma fa taxawoon. moom daf may gën a seex. te bu seexee daf may yóotoo kal bi. moo tax nga eh, ay. moo ma ma puus bopp bi. waaw génn fa ma taxawoon génn foofu. waaw yàq naa tànkam ba mu waroon kale. Mm-hmm. Euh, ardo bi parce que benn moment ardo am na ci combat bi. Mm-hmm. mu dem su ma jumul trois fois yoo xam ne euh, bi mu njëkkee dem ñëwaat ñëwaat na dem ñëwaat dem parce que dafa continuer woon di naaj ban moment la ko lak tuuse ba loolu am ci combat bi ak foo ko dóor. waaw ma benn xam ne direct direct du gauche la boo xamante ne daf ko dal euh, fii ci mm-hmm. bakkan bi. ak épicute yi nga xamante ne moom moo génn foofu noonu. waaw yooyu ñoo ko gaañ. Mhm. mais Babacar loolu ci moment la wala wala wala. bañ jàppante noonu si la épicute yi génnee. Mhm. dafa am lu ma gis ci biir combat bi bañu mitaan yi ñëw parce que Lac de Guiers foofu dafa mel ne dañ koo conseillé que ni dama nga jeexal combat bi. parce que bëri na foofu bëri benn bëri heure bëri si te dóor ko ñaari rafal gauche yi daal ci biir combat boobu noonu lan moo waral la da nga gëdd si te jeexal bi vite fait ci heure xam nga tey ba ma ñëwee jàkkaarloog moom. ma wax ak mu wax ma lu may wax. ba ma ñëwee di ko attaqué moom dafa muus su ma nee gërët day arrière yokk paa ci ginnaaw. yaa ngi dégg su ma gëddee mu arrièreaat léegi am na benn gëdd bu ma ko gëdd sama tànk ba mu tegoo dafa xaw a tarxis tarxis bi nag gars yi du nga ma mii teg sama tànk ci suuf sentir naa ne dem naa mu jékki-jékki indi gauche droite. maanaam gauche droite bi pour nga taxaw la wala pour na waaw gauche droite ko doon képp mu taxaw la. waaw ah. parce que bi dama gis ne yéen ñaar dafa am lu ngeen doon wut pour man. Mm-hmm. yow daa am loo looy wut parce que dama koy faral di wax lak day song te bu la fekkee fi nga taxaw bu la songee moom day jeex mm-hmm. mais si ta tamit des fois saa yoo ko songee. Mm-hmm. dafay mbëru tànk. bu la dóoree tànk da ngay surux daa mel ni loolu tamit bokkoon na ci lu ngeen doon calculer yéen ñaar ci biir ci bi de. non man su songee du échec de. Ah, loolu laa wax. Ah. moo tax ma ne Siteu tamit daa mel ni xam na loolu. waaw moo tax moo tax taxawul benn place. waaw yow itam bëggoo koo songi ndax xam nga ne day bëree tànk. song mu wóorul. parce que damaa gisul lu ma si song. waaw moom laay wax. bu bu sama song bu ñoroon da koy da koy tënk féete suuf. waaw ndax da nga bu la na la demal vas <laughs> nga moom ni mu taxawee. waaw bu mënee yunn pour ñëw. Mhm. day arrière day yàq jàng yi. yaa ngi dégg. dem taxawee côté bi heure bu ma toggee pour mu ñor su ma ko nee gauche gauche gauche mu taxaw fu mu taxaw su ma bëggee ñëw da yàq jaan génn foofu noonu. yaa ngi mais tamit bon am na conseil conseil nañ ko. xam naa ne masque mbargaan moo fa jaar. naan teel du ngaa du ngaa ko père boobu. acca xam euh, différence âge bi kit euh, poids bi ngeen am le fait moom mu nekk 108 yow nga nekk 100 et quelque 140 je bi nga doon mm-hmm. est ce que Lat waroon a mën a gaawal combat bi vu que doole bi différence bi dafa bëri de trop. yow foo mës a gisee poids lourd bi gaawal combat. <laughs> dafay laaj du euh, song. poids lourd day direeku pour gars yi xam. poids lourd boo gis mu song mooy lor na boppam. poids lourd moindre moindre geste rek nga def quatre appui. Mm-hmm. te dem na nga sóor loolu ci bi. quatre appui da nga ko doon parce que tey mbër buy pesé cent quarante kilo ak kuy pesé cent huit kilos wala cent dix kilos. Mm-hmm. moom moo war a ñëw song. te moo la waroon song man ba ma ciy toll man ba ma ciy toll samay morom. dama leen fekk jax jëlee leen fi. ba ma fekkee samay grand ci làmb ji. ma yor benn poids ñu ñu yor poids plus que man. da ngay xool sama combat yi gii. waaw ñëw jëlee ko fii. moom kay moom moo waroon ñëw song mais man li ma waxoon def naa ko. li nga waxoon def nga ko. waaw mais am na ñoo xam ne. Mhm. ba tey jàpp nañ ne Siteu lii ndam la ci moom parce que yow par rapport ak doole bi ak poids bi ak ni ko ndaw si waxee ak jiitu làmb ji tam parce que yow 2004 nga ñëw moom mu ñëw 2009 ñu bari jàpp ne kon mm. yow yaa amoon faveur yi ci côté boobu mm. boo xalaatee yaa amoon faveur bi kon ñu bëri jàpp ne kon combat bi danga ko waroon jeexal ak Siteu ci jëllu wal bi gaan <laughs> gars yi dañoo yaakaar ne léegi mbër bu ma jël rek moom du am ay mbokk yu muy dem wëri noonu làmb kay boo amee boo boo jëlee la dëgg la dëgg képp ko mën di jël rek di nga dem ànd ak say mbokk jik sa bopp dëgg dëgg dëgg waaw mm-hmm. da ngay waaw mais pré ah? lu tax ngay ànd ak say mbokk loolu parce que la mm-hmm. mm-hmm, lag la et puis lag lan moo tax tamit parce que man bon ak lu man di wax sa combat sa carrière ba mu commencé 2004 ba fi ma koy wax tey gisaguma mbëri daan la ba toog sa kaw loolu tamit lu tax waaw lan moo tax waaw waaw ah, loolu moom dañ koy laaj Allah non de non ci cadre sport la ñuy wax loolu moom loolu moom mënu ma non non non non non non non déedéet. man parce que waaw non mais Babacar kaay ma wax la ba gis nga jëb yi. bu yàlla tuddee damay daanu wallahi bu kenn dem ñaan damay daanu par force. non man dama bëggoon xam sa maanaam ci sa bëree la sa doole la wala say adversaire mm. ñoom ñoo amul argument yu ñu la war a jàppe daan la ba nga tëdd quoi loolu laa bëgg a xam. loolu nga bëgg a xam entraînement la. entraînement la hmm? rek. man samay entraînement du ma ci kaf du ci fo. parce que parce que parce que lan. da ngay liggéey lu dul liggéey. non waxuma li may liggéey ñoom duñ ko liggéey de. ñoom ak seen liggéey man ak sama liggéey. mais da nga ne entraînement la. waaw man damay entraîné. parce que yab ma samay fans. Mhm. ba ñëw ci làmb ji summeeku ñu xool ma yaa am jéppi ma bugguma lool. Mhm. yaa ngi dégg mhm. su ma ñëwee ci làmb ji balaa làmb ji ñëw sax dina entraînement yi metti est-ce ci combat bi sax entraîné naa ci ba feebar ci. wallaahi. bañ perfusé ma fi ñaari yoon kay mhm. mais tamit bon parce que loolu yëpp ndam rek laa bëggoon ndam rek laa bëggoon parce que bëgguma samay fans di mer mhm. man bëgguma loolu bëggoo ndam li ni nga ko neex na mais ndam ndam la ndam ndam la neex na de mm. ndam ndam la rek am na ñu ko fi am te pourtant bañ leen laa yeneen ña neex na hmm? mhm. ñu ma neex na neex na ba fu neex yow ndam la rek waaw. Ah. mais ndam li fan la mën a ah, jëmee instant bi. waaw Adja bi mu ne ndam li fu mu la mën ndam bi yóbbu ma fenn en tout cas neex na neex na mais yóbbu ma fenn. Hmm? pour te dire la yóbbu la fenn. xam nga moo tax. waaw surtout bu ma daanoon moom moom ndam dafa am fu mën na ñax ma mooy roi des arènes. bu la daan bu ma daanoon mën na ñax moom mooy roi des arènes. yaa ngi dégg. Hmm. te yàlla def na ne xam lax daanu kon kenn ndam bi fu mu ma yóbbu. man ndam yóbbu ma fenn yóbbu la fenn daal. sentir ma ko sax fu mu yi ñu ngi ciblé kontaan nañ c'est bien bon mais man con kontaanu ma daal. parce que man man ndam bi. xam nga la moo tax xam nga la moo tax. bon euh, maanaam daf sentir ma ko daal man daal li ma bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. mais nag lu loo bëgg. ma bëgg moom mooy ñi nekk ci kaw. kan ci kaw kay si tàngi ci kaw moom nga amoon dem. kan ci wala ci kaw da nga bëgg a laal ak ñeneen. da nga bëgg feneen ci kaw. parce que Tapha Tine nga bëgg. ba léegi waxuma leen lool de. ah ba léegi waxuma fi waxuma fi lool de. non ci kaw moom ña fa ne. Ah. bëree nga ak Modou Lo deux fois. Hmm. Eumeu Sène trois fois. trois fois benn yoon. benn yoon ngi dégg. Hmm. Ama yaakaar naa du ngeen bëri. Boy Niang bëri ngeen benn yoon. Hmm. ñooñu lañ buñ nee ci kaw ñooñu ñoo ne ca kaw. te xale yi ñëw nañ fekk si leen. dëgg la Siteu dugg na fa. Boy Niang dugg na fa. Ama dugg na fa. Sa dugg na fa Reug dugg na fa. te kenn du ko tere dugg yaakaar naa loolu la bëgg. ñoom ñëpp dugg nañ ci. ah waaw waaw a ngi fa de. waaw Sadio sa ngay bëreeg Eumeu Sène. Ah. waaw duggul. alhamdulilah ba Sadio dugg booy nang bëree ngeen mu bëreeg booy Balla Gaye. waaw Ama Baldé bëreeg Modou Lo bëreeg Gris ak Tapha Tine. waaw duggul. dugg na ñoom ñëpp dugg nañ. Siteu bëreeg yow. waaw ñoom ñëpp dugg nañ. ah rëdd jël na bombar ji. waaw ñoom ñëpp dugg nañ yegg si nañ. nee na sa bunt sa bunt lay fëgg bàyyeegu la. yaa ngi kuy Fara. Franc bu ja bu parcelle. ah ok waaw. moom yàgg na lay xéeroo moom. la seen mën baax na. yàgg na lay tegal métti. waaw ba non baax na man waxuma ci kooku la yow waxal sama affaire mais xale yi laa lay wax tey jël nga. waaw ñoom ñoom ñëpp ay champion lañ. Mm. waaw ñoom ñëpp ay champion lañ ay ndaanaan lañ te ñu ngi ñëw. waaw waaye man dama cuunee benn xale. doo cuunee hmm? benn xale. maanaam lak benn xale du ko. Baba Babacar Lac de Guiers 2 ngay waxal. la jot. dégg Lac de Guiers 2 ngay waxal number two yow yaay number one. déedéet one mooy benn. tout. waaw mooy ban ñaar. ñaar mooy ñaar waaw. waaw wax nga dëgg Lac 2. waaw mooy nombre two. lan tax nga lan moo tax nga jékki-jékki ne Lac ngay waxal nombre two looloo sant ba wax loolu. waaw parce que noonu la parce que su may wax sama tur damay damay sama xol day sedd. damay xam ne gaynde daa dëgg la gaynde dëgg la. maanaam ci biir làng gi da nga cee nekk mbër moo xam ne. dama leen sonal dama leen sonal. da ñoo sonal ñun ñan. ñan nga sonal. làmb ji ma leen sonal xanaa. déet eh, làmb ji kenn mu leen sonal ndax ndax dañoo làmb ji moom dañoo bëgg. bëri dama dama dëgër bopp nag. luy loolu. ak ma dëgër bopp. xaayaan dégg séeréer. doxalal ñu dem. mais la dëgër combat bi ma gis ne ci côté li nga xamante ne mooy ci côté Guédiawaye wéetoo ci làmb ji en 100 pour cent ci côté Guédiawaye ci autorité yi laay laay wax ak yow daal. bon loolu moom mënu ma ci wax après xam naa da ngeen ci waxtaan ak sama tons. Hmm. xam nga la moom di ngeen ci mën a communiquer ak moom bu baax a baax. waaw yaa ngi dégg mhm. ko calendar la sama doom la yaa ngi dégg mhm. loolu moom di ngeen ci waxtaan ak tons mhm. mais man moom sama devoir def naa ko chaque jour que jëfee drapeau géej waay nii laa koy gàddoo ba bàyyi lamb oh, mm. wallahi drapeau géej waay mm-hmm. même bu kenn demu mm-hmm. dinaa continuer di yor drapeau géej waay mm-hmm. parce jël si mooy xaalisam di jënd ay moo tax ne la kon am na ci lamb ji. moo tax ma ne la. ba ba may dee. géej waay mooy daw fii. même bu kenn demul même bu kenn demul drapeau Guédiawaye dinaa ko yor ci kàttanu yàlla. fi nekk nii est-ce que la pare na tey tey ngir jëlaat combat léegi léegi bu avance ñëwee. Babacar duñ xanaa duñ ma may ma noppal. ah doo doo bëri waat gaa yaa ngi ba wala Baye Ndiaye wala Makan Mbeng. yaa ngi sama numéro boo ma ba ñu yegg ci. mais lan la bi ci biir làmb ji. lan la woon dafa mel ne démb am nga loo xamante ne da nga koo bëriwaale mu nekk sa biir xool nga indaa ko démb ci làmb ci loolu waxtaan ci léegi tons parce que jafe-jafe yi ci bunt bi gis nañ ko mais grave am problème après dina après dina ci waxtaan ak yéen après dina ci ba buntu ba est-ce que ay moo fa am wala règlement. non buntu ba buntu ba moom jafe-jafe am fa. sincèrement par sincèrement sincèrement parler. maa ngi sant maa yi fa nekk yëpp. maa leen sant di leen gërëm parce que tamit. ba ma communiqué ak ñoom wax ak ñoom. dañoo taxaw déglu ma. yaa ngi dégg ñu nekk nit ñu baax. yaa ngi dégg service de l'ordre boobu noonu mention spéciale ci ñoom yaa ngi dégg di sant tamit waa waa waa golf ah commandant Ndoye maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax waaw ñooy escorté ñu ba stade aller retour xam nga loolu tamit dafa nekk lu nga xamante ni en tout cas ñëpp ñoom ñëpp ñi ñëwoon ñëpp maa ngi sant di leen gërëm bu baax a baax mais démb moom stade moom aw ma si jafe-jafe daal aw ma si jafe-jafe déedéet surtout kay man maa leen sonaloon ah. man maa leen sonaloon sincèrement parler bu wax amee rek. waaw ah, bu CNG sonnee rek man maa leen sonal démb. waaw Modou Lo ñëw na démb ma gis ko. Mm-hmm. mu dem dugg ci stade bi. Mm-hmm. dem maanaam gën a. yokk sa waay doole. c'est mm-hmm. que loolu noo ko gis waaw mais noonu du ko li Modou def lu ko war la. waaw lu ko war la loolu dara nekku si. ok wallaahi loolu gis mbëru géej waaye ñëw sa côté gis ñu leen. waaw non xaar ñu ñëw ci kii mu ne mu ne mais mais loolu lu ko war la mm-hmm. c'est normal wallahi c'est normal mu def ko mm-hmm. ah, man tam moom bu doon bëree keneen ci waa géej waaye noonu lay def rek mm-hmm. ah moom lu tax mu def loolu moom moom la concerne ñoom ñaar la am na lu ñu séq waaw ah, mais maa ngi koy rafetlu daal loolu moom ñaawlu ma ko sincèrement par ñaawlu ma ah. euh, gis na démb fi tamit man démb fi laa nekkoon Sa man ak euh, Pape Mama Fall mbës ak Père Mbow ñëw Sa Thiès démb nu mu def ci yow mbégte rek ndax démb wax naa ko ah mbégte Sa sama sama rakk la sama rakk la sama waay la yaa ngi dégg ba mu ñëwee fii démb dama ci am mbégte ba dafa fekk may takk ngemb mu ñëw taxaw ba ma takk pare mu taxaw wax ak man ñaanal ma yàlla kon donc jëm jooju képp koo xam ne yaa ngi géejewaay di ma ñaana yàlla na nga ko ñaanal saa kees tamit ci lépp lu mu mënti dugg yàlla oyofal ko may ko ci ndam yaa ngi mu nekk rakk ju baax rakk ma jox cër wallahi rakk ju ma jox cër dama koy wax waxaat ko heure bu amee lu ko metti bu yëkkatul portable am woo ma wax gi dina fu mu jaar ba mu yegg ci man yaa ngi dégg mu nekk nit ku dëggu nag mais yàlla na ko yàlla bàyyeeg soxnaam bàyyi ak yaayam ci barki Seydina Mohamed Euh, xale géejawaay yi tamit boo xoolee du ma ne sax ay xale ndax kooku ma nee xale moo xam naa di nga ma mbéj Alioune Seye 2 ci combat jëm te nee nga moo la jàngal bëri sam euh, samedi la wala dimanche samedi lay bëree mm-hmm. voilà moom ak ki nga xam ne moom mooy Modou Anta mu mel ni tamit foofa dina métti de daa mel ni du yomb de yàlla bu mu métti ci Alioune Seye 2 yàlla bu mu métti ci Alioune Seye 2 ak Modou maa ngi wax sama mbokk soose yëpp ak séeréer yëpp nañ ñaan Alioune Seye 2 yàlla may ci barki Serigne Babacar si ci barki kilifa diine yëpp. loolu nga laa koy ñaanal yàlla. Mhm. waaw ndax sama maître la sama lépp la. sa maître la sa lépp la. ci géej way ñoom am ndaw ñoom ndaw ay bugaan. waa ñooñu sax defe naa ci sa bokk. waa ñooñ ñëpp samay rakk la ah. lu ko mel ni andaw combat bi da cee sonn moom aw ma fayam. fi nekk di wax fi ay waxam moom fii la ñuy fanaan. <laughs> ndax moom sama andaw bopp la. daf ma bëggal boppam. yal na ko yàlla defal jàmm booy géejewaay yëpp ñoom ñëpp ma taxaw muy Jackson ñëw na géej contact nañ fa du benn yoon du ñaari yoon. yaa ngi dégg ak yeneen mbër yëpp ñoom Macha Perera ñoom ñëpp. yaa ngi dégg ñoom ñëpp ñëw nañ jàpp ci affaire bi. donc ñooñu noon amuñu seen fay. waaw booy géej géejewaay ñoom ñëpp jàpp nañ ci. même ku ñëwul sax maanaam di nga dégg yéenam ñaan. yaa ngi dégg maa ngi sant géej géejewaay ñëpp bàyyiwuma kenn waaw. le promoteur Mansour Ba moom mi tëggoon seen affiche. tëgg a démb seen combat moom tamit loo koy dolli ak waa jàmbaar production parce que jeune la mhm. te bi mu duggee si làmb yàggul mhm. mais boo xoolee ay affiches am yëpp mhm. qualité lay doon quoi waaw Mansour moom euh, xam nga mën naa taxaw gërëm ko ci benn côté bi mais damay santaale sam pa père ba ba pare maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam ndax euh, père ba moom tey bu dul woon moom du ñu am Mansour kon donc ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax dina ñaanal suñ papa père ba yal na yàlla guddal sa fan yàlla yokkul la ci barke Seydina Mouhamed suñu yaay ji baax ji nekk ci kër gi tam yal na yàlla guddal fanam gis nga Mansour euh, tey jeune la bi nga xamante ne ñun mbëri ñun ñëpp ko war a dooleel jàppale ko mu nekk koo xamante ne jeune boo xamante ne dafa bëgg li muy def bëgg sportu làmb c'est bon c'est bon